Assalamu alaikum, Madame Mariam Faisal. Alaikum salam, seno. Or uh, ñu ngi lay remercier lu ñu recevoir tey sa kër ñu ngi toog ci cour bu yanj bi ngelaw lu neex di ñu ëpp ñu fas yéene nag waxtaan ak yow ci quelques ponk jëmbale ko ci euh, fondation servir le Sénégal fondation servir le Sénégal nga xam ne ñëpp xam ko ci jëf yu baax yu rafet yu muy def jëmbale ko ci dimbale doomu aadama yeeg gi doole gi dégg naa yenn saa da ngay dox sax taseeg nit mu di la remercier fekk yow sax fàtte nga la nga defoon dégg naa it am na ay nit yu nekk hôpital dañuy faju ba génn war a fay ñu leen fondation jaaroon na fi loolu nag muy jëf yu rafet du Sénégal yëpp rafetlu waaye itam dégg naa nag jamono yii moom fondation dafa am lu ko rax